maaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi yéen ñëpp ak ma doon xaar ci diggante jayna ba ak ki nga xam ne moom mooy Alioune Badara léegi cas xam nga lan la bi demee ki nga xam ne moom mooy Dieynaba ah ak Alioune Badara ba mi ngi yaroo kawlax koñ bu ñuy wax Pongore Pongore bu ngeen ko déggee ci kawlax mooy Almadi bu Dakar donc euh, euh, kii di Dieynaba euh, duggul ci Alioune Badara parce dafa am xaalis parce que famille bu aisée la bokk maanaam pongoreel la dëkk ci Kaolack moom mooy almadi bu Dakar fa la yaroo fala la jàngee fa la defee école fa la def yëpp foofu ay directeur u ñoo fa nekk ak ñu am xaalis ñi may waxal xam nañ ko ci Kaolack mais xale bu jigéen bi di ba dafa bëgg Alioune Badara da koo bëgg trop duggul ci moom ngir xaalis da koo bëgg lool 22 ans rek la am da koo bëgg. tabaski buy jot wala ay événement danaan ko nan dem nan dem nan dem sa kër bugguma dem sama kër nan dem sa kër da koo bëgg am na benn jour jay na ba dem porte plainte Tamba maanaam bu dem porte plainte Alioune Badara mais xam naa dafa indil ay preuve léegi waa ji nag dafa bëri doole ba mu ko porté plainte boobu sans suite la mujje kenn laalu ko sans suite la mujje léegi nag kii da Alioune Badara jay ba fenn la juume mooy buy porte plainte da indi ay preuve yu wane ne da door ba mu ko yóbboo ci àll ba dóor ko ba pare ci ngeen gisee photo yii nii di circuler mais foto yii nii ba muy porte plainte la ko waroon a yóbbu bu amoon ay preuve jay na ba dafa bëgg waa ji da koo bëgg trop léegi xamante si nii fi la Dieyna ba juube mooy dafa fekk Alioune Badara jëkkëram muy sangu ci douche bi mu jël téléphone am vidéo yi xuur yeeg dambal yeeg yëpp comme ni ko ndeyam juree woon partagé ko ay nit man mii jot naa ci vidéo Alioune Badara fu taati neenam yi di muy sangoo man Adama man miy wax ak yéen maa ngi vidéo bi léegi bu nu demee ci kanamu loi ci kanamu luwaa laa leen di wax foofu jayda ba mënu faa am dëgg parce que Alioune Badara luwaa bi moom lay protéger parce que intimité moom la du génnee jayda ba dafa juum def erreur mais tamit nit ki tamit di nga toll foo xam ne da ngay yéeg di nga dund naqar boo xam ne dund tiis boo xam ne dund loo xam ne da lay jaral sax nga def loo xam ne waroo koo def dama koy comprendre moom jay na ba mais kaa bi dinaa ko topp ba yàlla def ci jàmm jay na ba génn ci kaso bi traité ko soutenir ko parce que jigéen la 22 ans rek la am incha allahu rabbi te ko am 22 ans de xale bu jigéen nangoo sëy ah war na laa mën a jàppale te man dinaa ci jàpp bu baax lii mooy kaa bi premier point laa ñëweegul mais maa ngi ñëwaat.